salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci ak ci TV ñu ngi ba tey fii ci biir Touba Mbacké xam ngeen ne nag Touba dafa nekk dëkk boo xam ni euh, dëkkub diine la mais dafa am ay politique yoo xam ne dañu fee aju Idrissa Seck tey moo ñu gën a intéressé xam ngeen ni euh, attelage gouvernemental bi def nañ ko bu bees muy gouvernement bu bees remaniement ministériel président Macky Sall def na ko tey jii ci dimanche ji nekk premier euh, novembre 2020 alors ñu seetlu ji nag benn point boo xam ne que dafa intéressé ñi nga xam ne ñoo dëkk fii Touba mu di nomination wu président a Seck ci euh, conseil économique social environnemental mu remplacé fa Mimi Touré mi nga xam ne moom dañ ko dindi ak yeneen ministre yoo xam ne jot na leen dindi ci gouvernement bi alors ñu bëgg nag dugg ci dëkk bi tey xool ñi nga xam ni ñoo doon jàppale Idrissa Seck ba voteel ko àndoon ak moom ci li nga xam ni moo nekkoon élection présidentielle yi ci atum 2019 bi ñu génn tey mu ñëw ànd ak Macky Sall fas yéene liggéey ak moom am na nu mu waxee justifié ko ne moom devoir la def ndax dafay choisir entre génn dem politique seetaan li nga xam ni moo di économie bi nga xam dafa nërmeelu fii ci senegal ak fépp ci àddina bi ak tamit euh, ñëw dugg ci gouvernement bi liggéeyal am réewam noonu la ko justifié waaye xalaatu ñi nga xam ni ñoo ko bëggoon ànd ak moom fii ci Touba ak xëy na sax ñi nga xam ne voté luñ ko woon lan lañ ci xalaat ñu ànd ak Malick Fadal Fall Assane Diop ci ak ci TV dem xool loolu. waaw man ni ma gisee mooy xam ne politique moom politique rek la mm-hmm. te li ma wax réew mi àdduna bi moo dañ ko solo pour liggéey ñu Banque du Sénégal li ma koy constaté muy góorgóorlu ci respecté nit ñi respecté tamit accords yi mu signé pour jëme Sénégal kanam ndax nit ñi sonn nañ fa ne lool ci bëccëg mbaloo ji li des dëgg moo war a taxaw dëgg ñu taxaw nag mooy comme mag la fekk na lu bari fekk di mu fekk tey épousé ay vingt quelque temps jamono Abdoulaye Wade ba indi Abdoulaye pouvoir Abdoulaye premier ministre mu liggéey moom ba tàggoog moom mu ñëwaat épousé Sénégal ñaari yoon 2007 ni ma tamit deux mille dix neuf bi ba génn ñu am ci yaakaar ci nag président mhm. yàlla doolu ko ko mu ñëw ànd ak bëgg jàppale Macky Sall Macky Sall di mhm. lu bëree bëri mhm. kon yaakaar ñu am ci moom daal mu ko yàq kon yow décision bi mu jël nii d'accord nga ci si d'accord naa ci parce que tamit yàgg na xam naa politique xam na Sénégal yàgg na politique te am naa yàgg yaakaar lool ci ni yaakaar ni euh, fu mu jëm Sénégal dana baax yaakaaroon moom dina ko yàqal dara ci wàllu avenir politique am ah non yaakaaruma que fekkee dëggul te gëm boppam te bañ nax nit ñi te lalu ci dëgg mën a am baax mën a baax daal dañuy Baye Fall lan nga ko gisee waaw daal loolu laa gisee dama gis ne daal genre transhumance boo xamante ne daal bu xaw def nii la daal <laughs> jëwriñ yow noo ko gisee xanaa sant ci rek ah. waaw sant ci rek bu baax d'accord nga ci lool waaw d'accord naa ci moom ndax citoyen bu ne war na d'accord moom mm. waaw kon daal yow da nga jàpp ni li mu wax ni moom devoir a ko woo mu choi euh, devoir ak dem euh, defal boppam mu choisir devoir. waaw loolu moom moom dëgg na moom. waaw moom réew mi bu ko réew mi ñoree moom. moom dañ lu ñuy rafetlu la. mais maanaam ñi nga xam dañoo ànd ak moom te yaakaaroon ko doon xaar vraiment mu mu mu mu demaat xarajiwaat euh, ngembuwaat wutiwaat dara ñooñu loo loo loo xalaat ci ñoom. waaw loolu ne moom li ma ci xalaat moom xanaa li ko gars di xalaatee rek. moom bu dee dëgg lu dëggu la ak askan wi ñor ko ak defal waa réew mi loolu moom lu ñuy rafet la ña ca des nag tamit waaw nañu jàpp rek waaw nañu jàpp rek te xam ne moom liggéey réew wat gaal ak yëgoo la daal waaw jërëjëf bu baax maa ngi lay ziar delloo bu baax yëg nga remaniement bi tey waaw yëg nañ ko waaw lu ci sa xalaat waaw di ko lu ndax réew mi soxlawul instant bi ay opposant di xuloo ko xeex dañoo nekk ci crise te Macky Sall président tous les Sénégalais la. nekkul pour APR ak part APR rek. kon foog naa ne képp koo xam ne war na mën a ànd moom liggéey. su la tàllal loxo war nga mën a wuy si ko fekkee réew mi ñor na mm-hmm. loolu ñu ngi koy rafetlu euh, di ca kontaan mi ndax ñun euh, parti APR la ñu bokk. kon décision bi Idrissa Seck jël dem ànd ak moom d'accord nga ci. waaw ànd naa ci ndax Idrissa Seck 2012 moo faloon bokk nañ ñu faloon euh, mu nekkoon ci gouvernement bi amoon ñàkk déggoo ci président de la république buñ si demaatee ba deuxième bi ñëw mu mu doxaat mu ñëw gis ne war na mën a liggéeyal Sénégal mu ñëw ànd ak président de la république comme ni ko andee woon démb dañ koy rafetlu. mais moom dafa bett nit ñi parce que moom dafa waxoon ne du topp ci ginnaaw kenn moom daal maire Thiès lay nekk liggéeyal waa cees wala mu dem nekk président de la république. tey mu ñëw jël décision bi euh, loolu tam yaakaaroon ni dina indi jiixi jaaxa ci ñi nga xam ne ñoo ko bëggoon. non non xam na waxi politicien euh, wax waxu leader en tant que parti foog naa ne nekkul lu lu garaaw ndax réew mi moo doole leader du parti parce que ñu ñëpp ay sénégalais lañ avant tey ay sénégalais la ñu doon suba ay sénégalais la ñu doon ambition bi mu amoon mooy liggéey Sénégal bu dee sàkku na ko ci temps bu ngor sàkku yàlla joxu ko ko jox na ko Macky Sall mu amaat euh, grandeur ñëwaat nekkaat ci ginnaaw euh, Macky Sall loolu dañ koy lu dañ koy rafetlu bu baax. déedéet ànduma sénégalais yi de boo leen waree moom dootuñu amati ci yow confiance daa war rek. kon daga nga jàpp ne dafa war sénégalais yi dafa war sénégalais yi da leen a war kay ba bëccëgu ndara kàmm. surtout waa Touba ñu ko woteel. waaw waa Touba surtout waa Touba ak yaakaar jën amoon ci moom waaw. Mhm. d'accorduma d'accorduma parce que dañoo nekkoon ci jamono campagne ñu dese que am na droit dem laaji réew mi Macky Sall am droit dem laaji réew mi mais Elzo Diallo bi Elzo Diallo dañoo war a xool li jëmale Sénégal kanam. te foog naa loolu bu ñu ci accès ñëpp a booloo nekk benn pour Sénégal jëm kanam. maanaam xam nga fu mu nekk nii moom opposition la nekk mënoon na dem xare jéem a yàqal président bi pour di ko galgal ak yooyu quoi mais nee na moom il préfère dem jàppale ko réew mi jógaat économiquement. ah loolu xalaatam la wax rek man daa kooruma ci loolu man daal war laa gis waaw war daal laa gis daa war sénégalais yi daal waaw loolu laa gis man gisuma loolu de. te da jàpp ni war gi moom dina ko jural ay conséquences. déet ku war ren ba déwén mu jig la du yow dañ la koo jiñ bon xam nga divergence d'opinion dafa am parce que xam nga ñii Idrissa Seck moo lay intéressé ñii xola Macky Sall intéressé mais am na ñoo xam ne seen ay ministre da a wàccee kii moom dafa mel lool ko metti waa sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax waaw am na tamit la moo la metti man moom dama am mbetteel tey rek parce que sama ministre la ñu wàccee ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye nekkoon jàmbaale président Macky Sall ah nekkoon liggéeykat tamit te ku nekk xam ne Aly Ngouille Ndiaye moom macha allah liggéeykat la jàmbaar la. waaw mais Aly Ngouille Ndiaye bi Macky léegi mi ngi liggéey nag moom tam mi ngi ko wàccee nag nommé keneen xanaa loolu kay garaaw. waaw moom ah, ah, dañ ko rafetlu tamit moom parce que ah, waaw ñu ne Macky ñoom depuis 2012 la woon. Aly Ngouille sax mais nag xam nga rek dañoo dañoo bett daal parce que moom Macky Sall ñoom ñaar waaw ñoom ñaar moom depuis 2012 la woon booba léegi macha allah. ñu ngi ko ànd nag moom ci dara ñaawul waaw ci liggéey bi yàgg na trop liggéey bi rafet na trop macha allah. mais mais am na ñuy wax ne moom dafa bokk ci ñiy xool chaise président fi mu toog yaakaaroon looloo tax ñu écart. ah man ne waxaguma ko man man ne waxaguma loolu léegi Ali waxaguma loolu de wax dëgg yàlla am seetlu ma ko ci moom tamit daal waxaguma loolu daal en tout cas daal. ah en tout cas daal xam naa moom Sénégal la ko ñor moom askan bee ko tamit. moom sànq def na benn post ci Facebook am mu ne mi ngi gërëm ñëpp yéen militants yeeg militantes yi mi ngi leen di gërëm te kontaan na ci li mu ànd ak Macky Sall ba yegg si fii léegi nag nee na feneen fu ko maanaam euh, réew mi woo pour mu liggéeyal ko dina dem léegi lan nga xalaat ni war nañ ko ko mën a def moom pour mu continuer di liggéey réew man moom ci ginnaawam laa topp man moom fépp fu mu jëm maa moom ñoo koy ànd. ba tey Malick Fall assan Diop Ahmed Seck ñi toog nag ak sëñ Mor Talla Tawfekh jëwriñ maa ngi lay ngi lay delloo ziar baax di nuyu di nuyu mboolem waa nit di actu ñi nga xam ne si ñu ngi leen di seetaan ci YouTube bi ak ci yeneen yeneen yi ñu ñëpp ñu ngi leen di nuy leen ziar. d'accord mais sëñ Mor Talla tey dafa am lu xew yëg nga ko. li xew remaniement. waaye am na ci lu ma xaw a jaaxal muy Idriss Seck min fal te ñu bëri ci murid yi bëggul mu nekk président de la république te gëmatuma dana yomb ci moom pour mu nekk ko ndax boo xoolee. bi ko falee bi mu defee déclaration ci YouTube bi mbooleem askan wi ñu ngi koy ŋaññi commentaire yëpp dañ ko dañ ko ŋaññi ñu bëri tamit dañoo bëgg génn ci moom te loolu daf ko yàq daf ko yàqal ci politique bu nekk président du yomb kon nag maa ngi bëgg ragal ci waxi Serif Ibrahima Aïdara ak Tidiane yi la la waxoon ci Idriss Seck ne doo ma sa nekk président maa ngi koy bëggam. kon yow loolu rek moo tax nga njort ni moom du ma sa nekk président li mu def nii rek. waa xam nga lu tax mooy mënoo bëgg a yóotu yóotu am réew nekk opposition ba noppi xëy xëy rek dugg ci gouvernement te Idriss rek xam nga daraan ngañ Macky Sall ne àndul ci Macky Sall même Abdoulaye Wade mi fi nekkoon moo gënoon a baax sax Macky Sall boo xoolee ci ay vidéo wax na waaw mais sëñ bi nag foofu moom euh, ah, Abdoulaye Wade mi nga xam nekk na fi 2000 ba 2012 danaan opposé Abdou juuf ci ngën ngaa metti opposé mais daraan ñëw bu bu lépp weesoo mu ñëw dugg ci gouvernement bi après bu élection ñëwee mu génn. waaw loolu moom man ma la wax wax wax ndax jamono boobu man mi ma fekkoon ci daara ji may jàng waaye man su doon moom du ma nekk ministre ci nguurug Macky Sall su doon may moom day toog xaar élection yooyu 2024 mu maslaa ak Sonko Sonko jàppale ko mu nekk président. kon ñi ngi woon fii ci Touba dëkk bu sell bi ñu doon euh, wër nag tey ci dëkk bi di xool. ñi nga xam ni euh, ñoo doon toog di déglu information bi tey ca bërki dem ba léegi ñu doon xaar donc euh, remaniement ministériel bi nga xam ni président Macky Sall def na ko tey ci dimanche ji mu di premier euh, novembre deux mille vingt alors ngeen gis ni nag am na surprise bu mag boo xam ne am na ci mu di Idriss Seck mi nga xam ni daf ko dénk conseil économique social environnementale bi nga xam ni fa la Mimi Touré nekkoon. Euh, mu jël ko nag moom nag wax na li tax mu jóge fa waaye nag ñi ñu laaj ñëpp gis ngeen ni les avis sont partagés ñii nee nañu d'accord nañu ci ñii ñu ne d'accorduñ ci ndax nangam ak nangam ak nangam alors ñii nee nañ da ko yàqal politiquement ñii nee nañu bu la réew bi woowee danga nga war a dem wuy ji te Idriss Seck moom noonu la ko gisee alors euh, politique nag moom comme ni ñu koy waxee nekkul loo xam ni da nga naan lii laay wax bu subaa loola it lay kon ne di wax voilà maanaam daal amul waaw éternellement amul déet éternellement tey mën nga wax lii bu subaa contexte bi mooy laaj euh, décision yi nga xam moom ngay jël politiquement Idriss Seck nag dafa mel ni moom ci jamono jooju la toll c'est vrai que wax na ni am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir partem ñoo xam ne ay militants yoo xam ni wax dëgg yàlla d'accorduñ ci mer nañu ay tout waaye moom daal angle bi mu ko gisee moom mooy rek devoir moo ko woo am réew moo ko soxla moo tax bu devoir taxawee da nga war a bàyyi lépp ay intérêt personnel crypto personnel ñëw nag ànd ak ki nga xam ni moom la yàlla teg ci boppu réew mi ngeen ànd liggéey incha allah nous savons que élection présidentielle beneen incha allah. 2024 lay am alors ñu xool nag ba xam d'ici 2024 am na yeneen xew-xew yoo xam dinañ fi xew en tout cas classe politique bi naka lañ ciy doxalee y compris président Macky Sall àndandoom bi moom ak Idrissa Seck ñu nekkoon fii nag ci Touba Mbacké doon wër ci biir euh, dëkk bi di laaj nit ñi seen xalaat ma àndoon ak Malick Fadal Fall ak nga xam ni moo de Assane Diop Ahmed Seck ci ak ci TV